ñu amati mbégte kontaan ma baax a baax mais ñu ngi amati mbégte ba tey ñu waxtuwaat ak ki xamante waxtaan moom tuuti eh, ci li nga xamante ne mooy ci match Sénégal suba bi danañ ko def ak moom Sénégalais yi baree bari di ñu laaj sëñ Cissé fu ak match yi gis ñu ko dip boobu ak léegi bu match yi commencé ak léegi lan moo war a toog def tekkaaral gi dañ ci waxtaan moom laaj ko sëñ gi lan la woon ñu am match bu doy waar suba suñu diggante ak ki nga lan yan révélation lay indi ci match boobu noonu sëñ si ñu ngi lay nuyu. aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim laa xawla wala quwwata illa billahi al ali al azim mbokki julliti mbokki taalibe yi ku nekk ñoo ngi nuyu sa tur ak sa sant di jiite ci nuyoo bi suñ Muntaxa Basiru suñ borom bàyyi ko fi lool mu yàgg fi lool tamit di ñaanal tarixa yëpp tijaan xaadir laay ñi seen ñëpp saa borom bàyyi leen di ñaanal waa diaspora bi di ñaanal ñi nga xam ne ñoo faatu suñ borom jéggal leen xaral leen àjjana ñi nga xam ne caabi moo leen féete ginnaaw caabi féete leen kanam te suñu borom mosal ci ñun ñëpp waaw ñoo bu baax a baax. jërëjëf sëñ Cissé di wax ne na moon nañ la gëj a mais ñu ñëw ci li nga xamante ne mooy ci match bi Sénégal diggante moom Côte d'Ivoire sëñ Cissé Sénégal am fi ay match yu bari yoo xamante ne jàll na fi dip boobu ak léegi gisuñu nga génn dafa benn sortie waxoo dara ci li nga xamante ne mooy ci match yi ba tey ñëw fas yéene naa laaj tamit tey ci match Sénégal ak xamante mooy Côte d'Ivoire suba muy match bi nga xamante ne Sénégal yëpp dañoo ànd ak tiitaange mais àdduna ngi lay déglu ñëpp ngi toog di xaar Sëñ Cissé lan lay wax ci match bi ak lan lay fa yéene dig Sénégalais yi. waaw xam nga danoo nekk dëkk boo réew moo xam ni ñu ñëpp ñoo ko moom muy Sénégal daanaka bu jagee ñu ñëpp la jagal bu yàqoo ñu ñëpp la yàqal te ku ñu xam-xam ni ci jàmm la ni dox moo tax ba bu ñuy commencé émission sax. dañuy ñaanal ñi nga xam ñooy baas bi ñii baas bi ñaan mooy suñ kilifa yi tarixa yëpp laay ñaanal kon nga xam ne tey jii nii réew mi moo ñu ñor réew mi nag bu la ñoree du ay wax kese danga ciy boole jëf donte wax ja tamit bu baree tamit na jëf ja na jëf kii bu bu jëf ja ëppee na wax ji néew waaw loolu la wante daal fii ma lay waxee daal muy réew mi ñor te réew mi lim ñu boole muy vert jaune rouge étoile bi mm. yàlla def nag ñi doon ñoo xam ne réew mi lan am ci réew mi leen juddoo fi leen yoroo moo tax bu réew mi soxlaa donte nag euh, dama koy wax chaque jour man yi ndimbal na ci fekk loxol boroom da ci amaale wante man dama leen yàgg dama leen wax fii ni leen lépp loo xam ne boole wun ma ci duma ma ci waxati wante lépp loo xam ni rek euh, boole nan ma ci dinaa ci wax ndax ci laa bokk te lu waaye loo bokk lu nekk rek séddoo ko ak say morom fi su ma déggee wax ji mooy sëñ Cissé fi mu ne nii ci marché bi boole nañ la sax moo tax fi mu ne nii ñu fas yéene ci waxtaan mooy ci suba kan euh, kan bi nga xamante ne suba Sénégal mu ngi jàkkaarloo ak ne mooy Côte d'Ivoire. que ñu gis da nga doon génn ay jamono di ci def sa doole ci marché yi bëree bëri ay marché yi méttee méttee méttee mais sëñ Cissé dañuy ñëw ci équipe bi wala saa booy ñëw pour wax ci bi dañuy nekk boo xamante ne fi mu ne ñëpp dañoo toog ci waaw loolu moom dëgg la ndax euh, daaw bi ñu koy jël yàlla dafa def ne bi ni liggéey ak fédération bi dañ daan def chaque match ñu génn wax boobu Matar ba moo fi nekkan chaque match ñu génn wax match bi nii lay demee Sénégal dina am ndam néeg nii lay gañe te yàlla def na loolu moo doon am ba yàlla def indi coupe bi ren nag danoo kaan bi bi mu commencé danoo toog suñ toog suñ ruq rek toog teewul nag bu équipe bi football danañ ko ñaanal mm-hmm. waa nañ ñaanal gi nag daanaka comme boo dee eh, dama la wax ne la ñaanal Afrique moo gën a metti ndax lu tax mu gën a metti mooy équipe bi ngay dajal duñ équipe yi jullit mm-hmm. te defaa ñuy taxawal sarax boo xam ne yow même boo ko amee tamit doo ko ci def waaw dañ leen ñaan sa kurus moo tax ba daanaka saa bun génnee ci max yi di engagé dañuy tombeek maxi bu am moom moo gën a metti yaa ngi xool contre Égypte buñ gagné Égypte qualifié wala contre keroog coupe de coupe du monde bi. Mm-hmm. Sénégal war a gañ Qatar war a gañ Équateur ngir génn. Mm-hmm. yàlla def ñu tombé ci ñaari match ren nag ñu tombé waat ci euh, Côte d'Ivoire bi. Mm-hmm. ñu bari nag ñoo ma doon woo gees gisuñu la buñ la gisee suñu xel dal. gis gi mooy liñ ma boole ci laa bokk. wante tamit ñu dugal la boole la ci biir da ci gën am solo. wante fii may wax daal sëñ Cissé engagé na ci. diggante Sénégal ak Côte d'Ivoire. Mm. engagement bi mu ci engagé wu nag mooy ñe yor mbir ma nag ñoo ko ci boole. waaw mbir da ngay bàyyi ban boole la ca même boo ca bokkee te boolewul la ca. xamul njëriñ moom boo dëkk ci kër. jii nii nga nekk fa locataire ka ca kaw sax am xew te yëgalu ko am nga droit boo waree xëyee nga dem xëy. lu dëgg yëg-yëg dafa am solo wante la ca am solo mooy yàlla ña jiite mbir. kon Sénégal Serigne Cissé day ñaanal équipe nationale bi ci diggante ñu ne Côte d'Ivoire ba maxi boobu jàll ak jaamu ñu xoolaat beneen maxi. mais Serigne suba bi ba léegi fa laay desante yow parce que fi mu ne nii mooy li nga xamante ne fi ne nii fit yëpp nga naan tëf tëf tëf tëf tension yi monté na pression yi metti na Serigne Cissé match bi lan lañ ci mën a lan lañ ci mën a wax tuuti rek junj ñu comme lu ñu lu nit mën a téye daal dal xel tuuti. xam nga damay wax ni nan dalal suñu ñu ñun ay réew jullit la na ko doon wax ci Coupe d'Afrique ba la jàll. ma la réew yi wër Sénégal gépp wala àddina sépp li am Sénégal amul fenn boo xoolee kilifa diine yi fi am amul fenn jàkka yi fi am ak jumaa yi amul fenn daara yi fi am ak ak ak bari <clears throat> amul fenn boo xoolee laa la wax dama lay wax ni la sëñ Cheikh Al Maxtum doon na ko yàlla na yàlla woyofal euh, yàlla yàlla suuf ayef si ko am suñ borom taas ñu ci barkeem daan na wax ne suñ borom bu xeeboo jaamu yàlla gi koy Sénégal di jaamu mm. day perte te loolu am la ndax boo xoolee ak jaamu yàlla fii la gën a kii kon ñun sagam am na loolu war ñuy wuti dara di ko di ci ragal di ci tiit ndax yàlla moo yor loola wante fii ma lay waxee moom bu soobee yàlla Sénégal dana am ndam suñ diggante Côte d'Ivoire suba ci altine ji waaw loolu moom man maa la ko wax moom bu soobee yàlla wante dafa nekk match boo xam suñ diggante Côte d'Ivoire mm-hmm. nekk match boo xam ne nekkul match bu yomb ndax boo xoolee Côte d'Ivoire ci ni génne rek da xam ni. Mm. ay mbir ma ca. te match bi bokk na ci match bi gën a métti ci Sénégal. ci kaan bii nii bokk na match bi gën a métti ci Sénégal. Mm-hmm. ndax dafa bari loo xam ne da cee laxasu loo xam ni amaana boroom bopp yi ñi am bopp eh, gis nañ ko amaana tamit ñi yàgg ci sport tamit xam nañ loolu. Mm-hmm. wante boo xoolee fii ma lay wax nii. Mm-hmm. fii ma lay wax nii match bi fii ma lay wax nii nii nii nii. Sénégal bu soobee yàlla dana am ndam suba ji diggante Côte d'Ivoire. waaw wante daal. biti sax dinaa leen ko wax balaa émission bee jeex. ah sëñ Cissé nga ne <laughs> Makan sëñ Cissé ne biti dañu ko wax balaa émission bee jeex Babacar mu nekk mbir moo xamante ne fi mu ne nii àdduna ñëpp a ngi taxaw di déglu ki nga que football yàlla may na ko ci saa def ci làmb ja def ci football ba ne nii ñu nga ca li nga xamante ne mooy donkaaf gi ñëpp fit yaa naan tëf tëf ak ñëpp ku nekk ko xamante tey yaa ngi euh, xaar suba match suba bi. suy téléphone fi mu ne man sama téléphone fi mu ne damaa mujjee fay ku ne may woo sëñ si abu lan la wax lan la wax. waa xam nga abu li may wax rek muy man bu ma engagé dara ak tiitukaay yoruma ci dara. ndax ku yor dara wala nga yor lu wér doo ragal dara. ndax ka ngay ragal yàlla la yaakaar. Hmm. yàlla lay ñaan kon boo toogee ci lu wér doo ngay ragal dara. danoo waa suñu loxo nag di ñaan yàlla ci lépp nag ci yàlla lañ ko teg mm-hmm. wante bi yàlla day may ab jaam muy xool li nga xam ne ñëwul mu war a ñëw suba jaam man kaa gis man a génn wax ko te bu soobee yàlla loolay am mm-hmm. fii ma lay waxee nii nii Côte moom yor na bit boo xam ne moom faaw mu jéem dugal mm-hmm. bit boobu nag ci la Sénégal di nekk ci laa nekk ak ñeneen ak ñeneen pour jéem a yàq bit boobu ba Côte du ko dugal bu soobee yàlla suba wante ñoo ngi ci liggéey liggéey boo xam ni Sénégal Côte d'Ivoire mën naa dugal Sénégal égalisé ba pare remonté mm-hmm. wante ñoo ngi jéem a dindi bit ba wante daal lu mën a xew mm-hmm. Sénégal suba incha allah day am ndam ci diggante ñu nag Côte d'Ivoire bu maxi boobu jeexee nag mm-hmm. ñu door a waxaat ak gaa yi beneen mag si yee di ñëw par benn mag si laa liggéey ak ñoom te commencé naa ko su diggante Côte d'Ivoire. jërëjëf sëñ Cissé kaddu yi am na solo Babacar lii tey dañ ñëwoon di waxtaan ak moom ci li nga xamante ci mbirum football bi mu leeral ay ponk yi am solo lool di ñaan yàlla na suba. waaw. numéro 8 Côte bi. nañ ci bàyyi xel de. waaw numéro 8 bi. mooy poson ba de. mooy poson nu suba bi. <laughs> di jox rendez-vous daal ñëpp di wax ni waxuma kenn digaluma kenn ay sarax. parfois ma dégg sëriñ toog ci télé bi. Euh, di digale ay sarax yoo xam ci équipe nationale wala ay maxi sarax du noonu gis nga des man laam euh, comme sarax bi mën na nekk paquetu miskit yow nga taxaw si tele bi wax ne ku nekk na génn paquetu miskit sarax boobu bu yàggee day ëpp te bu ëppee day taxaw ndam lum la waran a jox day mujj contre la ndax sarax boo pedd contre ba ci làmb gi a ci am mm-hmm. moo tax sëriñ buy digle sarax na ko génneel boppam même bu ko mënta génne ba na woo ak nitam ne ko sarax bi laa bëgg génn mu génne ko waaye nag boo tax ci bi rek Sénégal danoo xar boo ne fukki mburu mm-hmm. da ngay gis am ñaar fukki mburu lan def boo ne fukki miskit ñuy def ñaar loolu bu yàggee day metti suñu moo tax diglewu ma benn sarax sarax yi nga xam ne man maa koy def maa koy def yi nga xam ne tamit eh, daa war ñu koy def ñama engagé laa koy wax ñu def ko waaye nag benn sarax di suba na ñëpp lekk ba suur naan ba màndi suba ci heure bi ñu supporter Sénégal Sénégal am ndam ci suñ diggante ñu ne Côte d'Ivoire Serigne Cissé nag daal di waxtaanaat ak gars yi ci yeneen max yi ñëw wante par benn max par benn max laay liggéey ak gars yi incha allah. jërëjëf Serigne Cissé am nañ mbégte contentement bu baax a baax di ñaan tamit li nga xamante mooy suñu lion yi di ñaanal gaynde yi di ñaanal zoor yi di di leen ñaanal bu baax a baax di ñaanal ñoom Sadio Mané ñoom Ismaïla Sarr di ñaanal ñoom ñëpp ah. yàlla nañu yàlla defal jàmm ñu dóor Côte d'Ivoire suba jël dóor ko dóor yi métti sax. <laughs> amin amin amin ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. di ñaanal daal suñ muntaxaa suñ bëri suñ suñ muntaxaa suñ bëri suñ muntaxaa moom basiiru yàlla yàggal ko fi loolu tam wér di ñaanal tarax yëpp ci jaan xaadir laa ñeseen ñëpp saa borom bàyyi leen fi ñu yàgg fi di wax ni yàlla na fi jàmm sax di ñaanal waa diaspora bi suñ borom defal leen jàmm ku fa amay jafe-jafe ak situation suñ borom réglé la ko ñi nga xam ne ñoo jaar ci microgura bi dem nga xam ne yaakaar moo tax ñu dem yàlla bu seen yaakaar tas ndax ñoom doomi réew mi lan ak lu métti métti mi réew moo tax ñu génn ndax bëgg a tekki dimbali ndey ak baay ñoo tax ñu génn moo tax duñ fàtte di leen ñaanal ndax ñoom ñun ñooy ñun ñoom ñooy ñun waaw ñoo ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di wàcc suñu kàdd di xam ne kàddu yi képp koo xam ne dégg nga ci lu la naqar rek ñoo ngi koy baalu wax xam ne ab jaam la di taalibe Cheikhul Khadim moo wax loolu képp koo xam dégg nga ci lu la neex nag suñ boroom la ndax yàlla rek moom moo man tamit yàlla rek mooy dogal li nga xam ne xool na ko ba sàppantal ko ba ba mu doy ko rek mu def ko ci ab jaam kon dana xam ni loolu la suñu borom ci ñun rek waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu